waaw man li ma ci mooy sama jàngat diggante kal yi muy diggante séeréer tukulor ci diggante séeréer jola lu neexaloon réew mi la loo xam si jamu ju rëy la andi woon ci réew mi ndax képp koo xam ne nga ba mosaana dugg ci séeréer yi da ngay nekk koo xam ne ku féex ci seen biir doo am benn jafe-jafe man nga fa nekk dund fa di lek di nant ci dara du la ci war boo demee ci joolaay naka noonu affaire la boo xam ne nag li ko fi bëgg a jële yépp du dara lu dul ñàkk yar rek nit ñi ci boppam muy génération bu bees bi ci boppam dañoo amatul yar amatuñu yëg-yëg ci kenn yëguñu kenn faalewuñu kenn ba nga xam ni yooyu ñu bëgg ko fee jële bo ñun nag toujours li ñuy ñaan mooy yooyu daal continuer ñu bàyyi fi mu mel ni mu meloon ndax jàmm la doon andi ci réew mi sécurité da doon andi ci diggante xeet yi fop fa mosaan a dem nga sant ba ki sant wala ay kan jaxate yooyu yëpp da ngay am jàmm kon ba jàmm daal la ñu gisoon ci yooyu li fi bëgg a jëlee nag du dara mooy comme li ma rek ñu génération bi jeunesse bi yu yi yar lañu amul ak respecté doomu adam looloo ko fi bëgg a jëlee ñu ngi ñaan yàlla mu del ci waat fi Mm. li gën a tax jàmm am ci réew mi waaw waaw te buñ ko fi dindee tim wax dëgg yàlla dinañ fi dindi loo xam ne baaxoon na ci réew mi lool waaw waaw. Euh, message bi ma leen di lancé daal mooy comme bu njëkk ba ni nit ñi amoon yar kenn ku nekk respecté sa moroom kenn ku nekk fonk sa moroom mu dellusiwaat. kenn ku nekk respecté kenn fonk sa morom lépp li nga xam ne si xëcc amul benn solo dañ ko fi Jamu rek waaw jàmm ji amoon daal ci diggante etni nii daal nañ ko delloo si waaw man jàllo ñu sant jàllo waaw man ba bu daf may neex quoi daf may neex daf may neex su gisee muy ki sant jàllo muy ki séeréer bi daf may neex ndax man jamono yi nga xam man photographe laa comme amoon na ay jamono yoo xam ne ay campagne laa daan def ci dëkk kaw yi muy ay jilaax ak ay mbusnaax ak ay sandoog ak yooyu mais bu ma mosaana dem daf may féex daf may day mel ni comme suma kër laa nekk waaw ndax du ma am benn lu may xalaat waaw ndax dara lu bon rek duñ ma ko def man wóor na ma waaw ba ni ma retraité ci liggéey bii laa doon liggéey muy photographe waa hmm. kay jërëjëf enseignant à la ma jàngat mooy boo gisee réew mi am jàmm yàgg ci jàmm sax ci jàmm loolu ñu naan cousinage entre sant yi wala entre xeet yi lu ko lu ko lu ko favoriser la maanaam loo xam ne daf koy yombal alors tout récemment nag li fi xew moo ñu xaw a tiital parce que boo jëlee ci sant yi ku ci mel ni Njaay ak Jóob même bu ñu xamantewul bu ñu gisantee rek commencé kaf te loolu day rattaxal diggante ba nga xam ni lépp loo nar a def xalaat loolu rek da koy bàyyi boo gisee pël yi bu ñu jàkkaarloo kenn ñu ne ko kii tëgg la lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi sa que kam ku nga xam ne ni pël moo gën a naqari deret fii bon sant yi boo jëlee Njaay Jóob Faal Ñang yooyu yëpp am na ci donc loolu dafa dafa dafa duggoon suñu aada ba nga xam ni lépp la yombal lépp la yombal ala bi ñu demee nag ba mu commencé am ay khat khat ay khat khat ak yooyu alors ñëpp a tiit loolu indi quoi waaw mais loolu lu baax la ci Sénégal boo gisee jàngkat yi nga xam ni on les appelle ñu ngi leen di woowee ay sociologue maanaam ñoo xam ci xeet la ñuy jàng ak yooyu dañ ci insisté bu baax a baax baax ci ni professeur Thiam nga xam ne archiviste la dafa yàgg gëstu ci yooyu boo waxtaanee ak moom da nga da nga naan da nga vraiment am ku ya jar nañoo ñee te loolu lii rek moo ko indi waaw diggante sant yi diggante xeet yi kaf buy dugg saa ngeen xamante loolu loolu rek moo ko indi waaw loolu moom képp koo xam ni dénkaane nañ foo xam ni du sa ndey ak sa bàyyi nga dem fa yaatu fa loolu ci la bokk dafa favoriser jàmm ba nga xam ni nit ñi nekk nañ ay mbokk sax sans le savoir alors loolu moom vraiment buñ ko kafe duñ ko kafe nañ ko gëstu bu baax suuxat ko parce que day retaxal diggante ba nga xam ne finalement lépp ngay fàtte maanaam ci loo xam ni day indi ay ak yooyu lépp ngay fàtte comme af lu ma la ko affaire pël ak ak tëgg tu pël yi boo ko tooñoon tey ba nga xam ne génn na jaasi mais buñ ko nee tëgg la rek moom déjà pare baaw baaw waaw te loolu xam nga loolu cosaan la loolu ci maam yi la woon maam yi ñoo ko suuxat ba mu agsi ci ñun waaw donc ñu tam dañ ko war a suuxat ba mu law dem ci suñuy sët ak sëtaat waaw parce que loolu mooy indi jàmm ci réew xeet yoo xam ne bokkuñu dara bokkuñu dara mais jékki-jékki bëggante duñu noonante def yooyu loolu moo ko indi donc buñ ko négligé buñ ko négligé dañ ko dugal ci éducation xale yi xale yi ñuy dénkaane ci seen kër bàjjan seen kër nijaay tout ça yooyu yooyu yëpp boo gisee mu neex lii moo ko indi moom lañ ko teg ci suuf parce booy seet tax séeréer yi nga xam ne ak joolaa yi ñoo jote boo seetee seen cosaan duñu séeréer ak joolaa parce que ku ci am nijaay am maam di ja di jàkkoonteeg moom dem moom ñeme woo ñëw ne ko dama doon xuloo bay xeex bay waaj a reyante ak joolaa damay séeréer wala joolaa bi di dama doon xuloo benn séeréer ci waa de loo ko ñeme wax donc ñii ay wàlliyaan lañu rek booy taax yoo xam ne bon dañoo acculturé maanaam dañoo bàyyi seen cosaan fële jàpp ci leneen moo indi lii mais ku nga xam ni yaa ngi sa kër ndey sa kër baay wala sa kër nijaay di xëy di wuti xam-xam wala di xëy di jàngi wala di xëy di liggéeyi kooku lii moom doo ci dugg doo ko sax xalaat doo ko sax xalaat ah oui way très bien très bien nañ continuer di di dénkaane xale yi seen kër nijaay seen kër bàjjan seen kër maam waaw parce que réew dëkku taax yi rek moo indi lii dëkkutaay yoo xam da ngay wéet yow papa yaay et cetera bon nekk ci koñ boo xam ni ku ne fu ne la jógee loolu mooy indi yi mais ku nga xam ni yaa ngi jëm yaa ngi yaa ngi sa cosaan sa sa ci ko sax